réew mën mën naa jaaxle ba mu war a des Sénégal mhm. bi ñu amee Serigne Touba mooy dëgg te lu ñu ko gëstu gëstu gëstu dañ koy gën a gis muy gën a doon dëgg rek mhm.